hello asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay lu bari xam naa ni nam ngeen di waaye ñoo leen raw tey nag dinañ leen indil leçon bu neex leçon bi dafay jëm ci wàllum banque phrase yi nga xamante ni soo demee ci banque bi da nga koy soxlawoo leçon bu neex la am na ay vocabulaire ak lépp ci biir. yi nii di nga ko soxlawoo lool soo demee ci banque bi. bi ñu njëkk am mooy lan I'd like to open a new savings account please loolu mooy lan dama bëggoon a tijji compte d'épargne bu bees xam nga banque euh, wala compte bancaire yi dafa bari ay façon dégg bokk na ci façon yooyu savings account muy compte d'épargne compte boo xam te ni denc moo ko tax a jóg I'd like to open a new savings account please dama bëggoon a contre compte d'épargne bu bees ok ñoom beneen mu ne I need to deposit some money into my account I need to deposit some money mooy dama bëgg a def dépôt ma xaalis into my account ci sama contre dugal xaalis ci sa contre moom la ñu woowe deposit dégg nga deposit jàpp ko bu baax a baax I need to deposit some money into my account dama bëgg a dugal xaalis ci sama compte kon boo demee ci banque bi fekk da nga bëgg a def euh, xaalis ci sa compte boobaa mën nga wax loolu I need to deposit some money into my account ba tey mën nga am phrase bi could you please help me with a tran a wire transfer could you please help me with a wire loolu mooy lan ndax mën nga ma dimbali ci benn virement bancaire wire transfer mooy virement bancaire li ki nga jële ci sa compte envoyé ko kaneen ci comptam loolu la ñuy wooye lan wire transfer ndax mën nga ma dimbali ci benn virement bancaire I like to withdraw some cash from my account I like to withdraw dama bëgg a dama bëgg a génne jàngat nga lay deposit deposit mooy dugal mais contraire bi mooy génne withdraw I like to withdraw some cash cash mooy xaalis dégg I, I, I like to withdraw some cash from my account dama bëgg a génne xaalis sama ci sama contre nga bëgg a retirer rek simplement ok Mangam aussi, could you check my account balance for me? Could you check? ndax man nga vérifier ndax man nga xool my account balance mooy sold bi nekk ci sama compte for me pour man yaa dégg mooy ndax man nga ma xoolal li nekk ci xaalis ci sama compte solde bi nekk ci sama compte dégg account balance mooy solde bi nekk ci compte bi kon could you check ndax mën nga vérifier could you check my account balance for me ndax man nga ma vérifier solde bi nekk sama cont ba tey mën nga am I am interested in applying for a credit card what are the requirements I am interested mooy dama intéressé wu dama bëgg dama soxloo lan in applying demander for a credit card mooy carte de crédit dégg carte de crédit koy jëfandikoo lu bari ci jënd yeeg yooyu lu ci bari nag réew moom dañ koy utiliser bu baax a baax a baax a baax waaw di jënd boo jëndee ci béréb nga daal di fayee euh, credit card dégg nga am na achat yu bari yooyu soxla ci internet bi tamit boo amee credit card dina la ci dimbali moo tax mu ne ko ma bëgg benn credit card what are the requirements lan mooy critères yi li nga xam ni moom lañ soxla ci yow pour nga man koo am dégg nga parce que lépp lu ñuy demande dafa am ay critères all ñu am phrase bi aussi muy could you explain the fees associated with this account could you explain ndax man nga leeral man nga expliquer the fees fere yi associated nga xam te ni moo ànd with this account ak compte bi am compte bu nekk dafay am frais boppam compte yëpp yamuñu fa am compte yoo xam dafa am lu ñu lay dagg waaw compte yi daal am nay détail ci biir déjà bu fekkee da ngay tijji compte dafay am solo aussi nga laaj fere yi aju ci compte bi moo tax mu ni ko could you explain the fees associated with this account ndax man nga expliquer fere yi nga xam ni dafa aju dafa ànd ak compte bi all right can you help me reset my password su fekkee sa mot de passe dafa am jafe-jafe wala nga fàtte ko wala yooyu mën nga wax loolu waa can you help me ndax mën nga ma dimbali reset mooy lan réinitialiser dégg nga ndax mën nga ma dimbali ma reset muy réinitialiser my password sama mot de passe tam lu am solo lu ma a jàppale aussi boo ko soxlaa nga mën a jëfandikoo phrase boobu I like to close my account what do I need to do mooy dama bëgg a tëj sama compte what lan laa soxla woo lan laa war def I like to close my account what do I need to do dama bëgg a tëj sama compte lan laa war a def ok phrase yooyu nekk na yu am solo na nga ko jàpp bu baax a baax su ko defee boo demee ci banque bi rek doo am benn jafe-jafe waaye dañuy gën a détailler vocabulaire yi nga xam te ni nekk na ci phrase yi ñu jël léegi ok savings account savings account mooy lan compte d'épargne compte d'épargne savings account compte boo xam te ni denc moo ko tax a jóg ok savings account waaye ñu wire transfer wire transfer muy virement bancaire wire transfer virement bancaire fees fees mooy ay frais dégg tey bu fekkee da nga envoyé nit wala Orange dafay laaj ay fere loolu la ñuy woowe fees dégg nga fees mooy fere tout bu set tout lu set mooy réinitialiser réinitialiser mooy tout lu set balance mooy sold balans mooy sold yow su konto am na dara solde am dégg nga ndax am na dara balance dégg nga da ngay dégg léeg nga woote ñu la sa solde maanaam li nga yor ci sa compte yaa ngi dégg bariwul wala matu ko balance requirements mooy critère sart yi wala li nga xam ni condition yi lay tegal ci mbind mbir loolu la ñu wooyee requirements fekk da nga yenn demande yi dañ lay tegal ay requirements mooy ay critère kay la kàngale li ma nekkoon sunu leçon waaye ñu leen di jéggalu bu baax waaw xaw nañu raar lool nag mais <laughs> alhamdulilah ñu ngi ci jàpp ñu ngi sant bu wér a wér wér macha allah kon dañuy dikkaat bu baax a baax ak eh, eh, yéen ci leçon yi rek